salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu bismillahi rahmaani rahim mbokki internet yi mu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di ñaan uh, vidéo bi fu leen fekk yàlla na doon jàmm ci yéen et andi nag ay précision rek yoo xamante ni ay leeral ci benn internet boo xamante ni ma nga ca tugal ca France nekkul Sénégal ki doon def vidéo bi waxul turam mais ñun xam nañ ko mbir mi moo di dafa jël ay wax yu ñaaw yu bon daal koy teg ci deru première dame muy Marème Faye Sall wax yi mu wax nag benn tax aussi xelam la doon waxee ak xalaatam yi nga xamante ni ak jëf yoo xamante ni danga ko ko waxloo maanaam des personne mal intentionnées yu nekk ci ginnaaw ñoo koy waxloo yoon ni ko waxal lii yooyu yëpp parce que yu sunu dafa way ni nit ku lay wut jéem jéem jotu la day seet ki la gën a jege mu jaare fa mu yàqal la léegi nag jëm nañ jot moom mii booy Pastef bii poulain Ousmane Sonko bii nekk ca France moom mooy jéem a jot parce que moom mooy jéem a jot Macky Sall mën nu ko jot ñoom ñoo jéem a jot Macky président Macky Sall mën nu ko jot ñu bëgg a jaar nag ci soxnaam léegi lan la ñu mën a waxal soxnaam que léegi fan yi dafa dof ma reem dafa dof ma ne nit ñi déggante nag ñoom semaine yi rek ñu génn déggante nag ñoom semaine yi ñu génn te du man rek ah ñeneen ak ñeneen kon ki dof moom la ñu war a jàppe dof parce que dof weesuwul yow ngay wax wax yoo xamante ni teguwul ci yoon amul bopp amul genn ba pare na jël sa temps développé li mu développé laa leen di wax nii wax na ni ma ne reykatu nit la yàlla yàlla ci dégg doy ci loolu mu wax noonu Marème Faye Sall nit ku pire si àdduna bi si soxna bokk na ci ñi gën a pire la ci àdduna ci soxna yi waxuma moo fi gën de mais ñi gën a pire si jullite ci set ci maanu ci jullite ci mën a dimbali Marème Faye Sall ci la bokk encore une du ma géwélam damay tontu sama xarit la ndax réseau des amis de la première dame du Sénégal Marième Faye Sall man mii maa ko jiite foofu laay waxee ndaxte man ku laal si man lu bokk ci man ma yëngu maanaam génn ngolo gudd na lool waaye loo ca laal borom yëg ko foofu laay waxee Marième Faye Sall waa ji nee na hôpitaux yi nga xamante ni moom la ñu tabax. moom du moom moo ko waroon tabax ndax ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi di borom këram le président Sall moom moo ko waroon def mais nit ku nekk boo amee sa borom kër man sama soxna damay jàppale man sama soxna yi ma am laa dañ may jàppale ci ay côté kon nit moo nekkee moom da ngeen di jàppalante kon moom les hôpitaux yi muy tabax pour jàppale réewam la jàppale borom këram ci liggéeyam. nee na Marème Faye Sall lan lay liggéey Marème day liggéey Marème Faye Sall day liggéey parce que dafa yore fondation fondation Servir le Sénégal ma ni la première dame boo gis ci adduna bi am na loo xam ne teg na ko pour jàppale borom këram parce que borom këram loxo yi mënul jote fépp mais loxo borom këram bu jotewul fii moom Marème Faye Sall mën na ko te noonu lay liggéey réew Sénégal te sénégalais pur pur et dur sang jaayul tubaab jaayul affaire kenn elle est naturelle ni ko yàlla bindee loolu la ko yàlla bindee donc ki doon wax nii internet boobu doo ma ne message dafa doon wax yàq la ak waxi kasaaw kasaaw te yooyu yëpp parce que jéem nañ jot jëkkër mën na ko jot léegi ci moom lañ koy jaar te bu dee mën a nekk du ko jot ndax du wax benn war na ma ne message kë que ni waa Saint-Louis leen jox ay percal loolu sacrifice la ndax si abu fétiche la yow ma ne maanaam du jege raw du yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam féticheur du yore téré alquran karim bu kay laal mu kay lakk bu kay laal muy lakk te limay wax borom xam-xam yi ak ñi xam limay wax xam na limay wax yàlla dara daray sobe du ko jege daray sobe asama mu yónni sallallahu alayhi wasallam dem ca kaabatallaa bi tok fa fekk lolu lu dul dëgg bi yàgg kon yàlla ray nak bu yag kon li ngay wax ay kàcc la du am amul bop amul geen yooyu yep pour nag yàq xelu sénégalais la moo tax ngay toog fekkee da nga fay pour nga wax yow yamal ci jaay ay livre livre ki nga xam ne moo soxla réew Sénégal ni di ko wër di wër Sénégal lu ma lu président wax mu ni kii lay toppandoo kii lii lay def jaayal ay livre si nga nekkal saxal foofu ci pare gi nga bàyyi say morom yi restaurant nga doon liggéey ñoom xam nan la man mii wul àdduna xam naa la kon xam nan la bu baax bu leen yàq deru jàmbur nee nga madame Mbaye Sall aussi yaayam moom moo dem ba pare ya madame Mbaye Sall ngi fii demul fenn fenn demu fi mi ngi fii toog di la dégg wax seetaan na la boolekaat ay reetaan nag nit ki koo ëpp li mbokk mënoo ko jëw parce que Sénégal léegi dañu dem ba nga xamante ni lii lépp ay yàq la intoxication yi ngay def ay yaay madame yi ci biir palais bi ma nga jël or yi di karawale yéen i or madame Mbaye Sall da nga ko mos a mu takk or bi kat bi ba léegi dafa naturel laa wax ku naturel la dootele am naka musul wanewu musul tiital musul jaay affaire kenn te soxna yi may wax yëpp Sénégal xam nañ li may wax te li may wax nii ñoom xam nañ ko bu dul dëgg nañ man kii Gaston li ngay wax du dëgg benn wax nga ni yow ñu ngi lay menace topp bi nga génnee kii bi da ñu ngi lay menace ñi lay menace wax ko kon li ngay wax du dëgg parce que fekkoon dëgg la ñi lay menace da ngay wax diw menace na ma diw man ku ma menacé ma ni diw menacé ma ndax direction des investigations criminelles mën na jot information ma xam ne diw moo ko waxoon daal di teg sama loxo ci li xam am kon tu kenn menacé la yow yaa wax say wax ak des personnes yi nekk si ginnaaw fay la ak livre jàmbur ki nga xam ne dafa soxla réew mi te du ko mos a jot ndax xamul dara koo xam ne day tiisal rek di wax du ko mos a jot beneen bi yaa ngi wax ni ay Marème moom mooy jox décision yi moom moo koy jël yow nekkoon njiitu réew bindoo décret defoo dara soxna rek nga nan lay jëlee nan lay jëlee ay décision ci ay nit tam ka neexoon sax mën na toog wax ak jëkkëram mën na toog jàppale jëkkëram sax si wax mais loolu doxu ci Marème mi ngi ci fondation ak ñu mën na dimbali jàppale leen wax nga aussi am na benn émission buy daw ci benn télévision di daw ci benn rajo FM te nag tu as cité son nom ci Ndoye Bane nga wax loolu bu amoon Ndoye Bane kenn du ko jam naan loolu bu amoon Ndoye Bane moo koy jëkk a wax te sax loolu bu amoon war na mën a ne ndax feebar boo ko siiwalul kenn du la mën a faj fekkee nit da nga ka jot bind ko mënoo ko jot wax ko ci télé dina ko dégg man te taxaw man a fay sàlla su 15 millions wala 16 millions d'habitants yi mais xamu leen xamu leen kon li ngay wax nii waxi bopp boo amul genn say bànne raari lay kon na ngaa wax loolu neex beneen bi yaa ngi wax ne waa Rufisque ay cercueil lan leen jox mais ku nekk la nga bind ñaan ko première dame loola lay may jumaa yu bëri am na nañu morgue mais am na ay cercueil parce que cercueil yi seen i néew yu jóge bitim réew bu ñëwee cercueil yooyu dañ koy dindi duñ ko mën a toj pour mën la sàng léegi il faut ñu dugal ko boo xam ni dañ koy teg mais loolu ñoo ko ñaan ma ne fay sàll ma ne première dame leen ko may wax ay nga tamit ndar ay talatul ko perkal moo xew lu weex tàll la di sol parce que ñëpp dañuy delluwaat suñu borom kon bu ko defee te la nga wax dara amu ci tusi ya ngay wax ay perkal la nu joxal ay lii la ngay wax xam nga foo ko jëlee wax jooju sa président bi nga xam ne moo nekk sa ginnaaw moom moo ni woon moom moo leen ko jox jox ko ay militant wu ñu APR wala benn bokk yaakaar li ngay wax dara amu ci jumement beneen bi yaa ngi wax les toilettes la toit de li nga xam ne ñu ngi ko def ci banlieue kon benn fen nga nga ne ndox moom la ñu jël déchets yooyu ak puits yooyu daal kay ndox di ko jox ñeneen ñi naan ban usine moo ko traité wax ma wax ma ban usine moo ko traité fekk ñëw li ngay wax dëgg la caw di nga ne telle usine wala telle fii wala telle place lañ koy traité da ngay fen ci benn ndox ndox bi ñu ngi koy traité ca Lac de Guiers di ko liggéey foofu mu wër Sénégal wër nga këpp ndox moom la ñu naan. ak li ma saa Masar anamu kon da nga ma wax dañ koy jël ñoom la ma waa kan moo am sax jot sax dem ci bàll yi di tonni puub yi di naaga noo yow doo tu ma da ngay fen donc nit boo di wax pour ñu dégg la da ngay bàyyi da ngay loo xam ne ki France ko nga nekk toog di wër doon jaay ay dàlla ak i bijoux yem ci tey ji moo tax ba sor sunu tëj sunu uniforme ñi nga xam ne ñoom ñoo ne aar di leen saboté sor sa soo sa casquette soog sa peere daal soog sa trait yi non doo patriote yow da bokk si patriote yi Pastef mais doo patriote yow yàqkat nga activiste nga yow da ngay yàq xelu ñu ni mais mënoo dox suñu maay Marième Faye Sall elle est pieuse elle est correcte dara jotu ko dara dara dara mais ci jàmmam jëkkëram moo confiné ndax am na ku mu contacté juróom-ñaari yoon bi nga seetee mu négatif mu toog di toog doo jëkkëram di ko fóotal di ko jox muy lekk di ko jox muy naan toog ci wetam ah gis nga toog ñaari semaine parce que génnul dem fii dem fii moo tax ñu ne nangam fekkee di nga gëm loo guddi ka mbokk yi laa am lu ma doon leeral ngeen baal ma waxuma ci xolu xët xët ndax xolal ku dul ku koo xamante ni la ngay wax wóoru la nit ki boo dee seet seen nit da ngay seede yoo xam ne xam nga xam xamoo ba. Mama Marème Faye Sall fekkee da nga ko bëgg a xam da nga fii fekk nu bi Sénégal ñu wax ak yow kan mooy Marème Faye Sall ak nan la mel ak lan lay jëf Marème ku baax la lu baax la jëf te su lu baax lay dox te loolu lañ ko xamee te ku jullite la te du dugg ci affaire fétiche du ko dig du dugg ci benn lu xool wala leneen lu bon wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.